asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen comme ni ngeen ko xame rek ak Babacar lu jëm ci wàllum sport bi nga xam ne mooy suñu sport national di làmb toujours ci la ñuy dox ak yéen di leen ci jox ay xibaar di ci wax ak ñi nga xam ne jàpp nañ ne ay acteurs lañ ci te am ci kàddu di ko yokk tey nag ñu fas yéene waxtaan koo xam ne yaakaar naa ne ku ne xam na ko muy le président de amateurs ñu koy wax Doudou Diagne ko li waral waxtaan bi tey nag bokk na ci ouverture làmb ji làmb ji ubbi na dèjà ah euh, date yi mu mel ni fi mu nekk nii sax est ce que date yi manqué wul lit simple bi naa naase na lit avec frappe bi noonu bi ci des mooy samedi jii nu jëm incha allahu rabi di di la 27 Fallou Ndiaye jël drapeau tudde ko ko maanaam ca arène nationale lool nag bu ñu ko mooy mise 4 millions la fa Fallou njaay teg muy lutte simple bëri bu àndul ak dóor waaye xulle balaa may sori rek tey faw ma wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ko waral lenn la mooy euh, bi may dugg si fii ci hôtel bi la ñu ma woo tàgge ma ko nga xam ne su ma yumpaañ la di sama yaay parce que mën naa ne ci mbokk benn côté bi yaay la ci man waaye yumpaañ la ndax sama aawo nijaay la sama nijaay boo ak sama yaay ndey ak baay ñu koy wax maire Mbaye ak Ndiaye dëkk ca Mbomboy Refan may ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana di ko jaal famille bi yëpp yëpp yëpp yëpp ay doomam tamit yëpp du ma fàtte kenn rawatina taawam de Aline Ngom alin Badara Ngom maa ngi koy jaal di ko jaal ñoom say képp koo xam ne daal yaa ngi ci biir famille bi parce que kooku moom ah, perte la bu mag tey ci suñu famille waaye nag yàlla moom muy ñëw ki dogalam rek du mën a ñàkk prési maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne Euh, am nañ contentement trop tey fekk si la fi nga xam ne nii moom mooy hôtel Terrou-Bi fas yéene waxtaan ak yow. maa ngi lay nuyu Babacar di kontaan si yow di la jaale sa yompaañ bi génn àdduna léegi di ko jaale sa ndijaay di ko jaale waa dëkk bi yëpp di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nuyu di nuyu képp kuy amateur ak képp kuy seetaan euh, Equivox TV. képp kuy seetaan Pikiloos TV maa ngi lay nuyu di ziare njabootu làmb gépp di nuyu ministre de sports Matar Ba di ko gërëm di ko sant taxawaayam bi mu taxaw si sport rawatina làmb muy suñu xarit buy nit ku baax ku am njëriñ xam ne vraiment buggul benn sportif sonn buggul benn sportif jaaxle kon ñu ngi koy gërëm di ko sant am na taxawaay bu am solo bés bi nag daanak moom bësam la ndaxte moom amateur la ku bëgg làmb la ku yàkkamti bëgg seetaan làmb ñu koy gërëm di ko sant di gërëm it Fallou Ndiaye moom mi nga xam ne moo ko tànn ñëw jagleel ko amateur yi bés bi du sama bés bésu amateur yi la bésu amateur la bésu groupe baax la mu Samba Dieye bésu ñëpp la képp ku nekk ci làmb rek bés bi sa bés la képp koo xam ne yaa ngi si làmb rek bës bi sa bés donc bës bi bësu ñëpp la bës de la paix la jàmm pour woote jàmm ci réew mi euh, ñoo xam ne lépp jàmm lay mujj ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñi si génn àdduna barki démb li amoon si réew mi ñu ngi leen di jaale yàlla leen yàlla xaare àjjana ñi si feebar aussi ñu ngi leen di massawu yàlla wéral leen démb am na ñu ci jot a bàyyi muy Clédor seen ak euh, bir bi ma saaña ak Assane Diouf aussi remercier président de la république ñeneen ñi tamit ñu ngi leen di waaj a bàyyi ñu ngi ñaan na bàyyi ñëpp di gërëm nag Mansour Faye parce que li tax ñu koy gërëm mooy boo jiitee maire nekk maire euh, Saint-Louis ñu yàq ci maire bi dara yooyu ay kilifa gi waaye ay doomu ndar ñoo ko yàq mu ne man duma ma kenn du ma yóbbu kenn police du ma yóbbu kenn gendarmerie alal ji alalu ndar la ndara ko moom doomu ndara ko yàq kon nañu bàyyi lépp mu sedd loolu aussi ñu ko siy gërëm di ko sant parce que ñëpp bu ñu defee ni moom xam ne njaboot gi njabootam la xale yee def loolu ndar lañ dëkk ay njabootam lañu ay doomam lañu vraiment loolu jar nañu ko siy gërëm di ko sant waaw moo tax euh, ñun comme que ay euh, euh, président des amateurs fépp am nañ fa mbooloo kon nag loolu bu fa amee ñu ngi koy gërëm di ko sant loolu lu rafet la bis nag mooy euh, ñuy gërëm Fallou Ndiaye li mu taxawaay bi mu am ak ñoom Pape Abdou Fall ak képp kuy promoteur muy jéy production muy ñoom Laxaat njaay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di gërëm it seen mag muy Gaston Mbengue ak Serigne Modou ñaa ak Luc Nicolaï ñooñu am nañ taxawaay bu am solo bu ñu def te ñoom boobu ba léegi ñu ngi fii di bëggal amateur yi kon nag ñoom tamit bés bi seen bés la ñu ngi leen gërëm di leen sant di gërëm ñëpp daal euh, Babacar xam ne bés bi di ñaanal yàlla ñi feebar nekk hôpital ñu jóg di ñaanal aussi ñi si prison yi génn nekk seen mbokk yaa ngi dégg di ñaanal ñëpp daal jàmm waaw. léegi damay continuer yow des ak yow si diggante euh, sa diggante ak Fallou yàgg nañ laa tudde drapeau si làmb mais xëy na bii li tax mu marqué sénégalais yi mooy dafa tombeek làmb di ubbi parce que làmb ji ku ne xam ne ne ubbi na jàk su moo ko ubbi dimanche passé terrain gaal gi ñu ñëwaat tey ñu tegaat mise bu mag a mag samedi ah muy 4 million ci arène national Fallou Ndiaye tànn la delloo la ci njukkal ak amateurs yi ngay président amateurs yi loolu tamit defe naa ne donte yàgg nga am ay bés mais tamit bés bii dina nekk bés bu spécial si yow ah. waaw bés bi bés bi dafa spécial parce que lu tax loolu mooy xam nga ne ñun dañoo lëkkaloog lutte traditionnelle Saliou Diouf mooy président lutte traditionnelle Diène Diouf mooy président premier vice président lutte traditionnelle si kuréel amical des amateurs Aramda donc nga gis ne eh, ñoom Mbayang Diouf Mbayang Mbayang Mbayang Fall se lañ bokk nga xool aw juuf Ngaati Sëy nga xool Mamadou Diouf Euh, euh, ñoom ñëpp tey ci foofu lañu bokk kon bés boobu daf may neex parce que amicale des amateurs lépp lu xeetoo làmb dañ koy seetaan muy lutte traditionnelle muy lutte olympique ñun lépp la ñuy seetaan donc yàlla bu defee nag ñu tey ñu nekk si làmb ak ak ñoom Aliou Ndour nga xam ne moo yor lépp lu communication tey bu ñu nekkee si loolu. ñu ànd nekk benn di si liggéey làmp Fallou Ndiaye tuddeeñu ko dañ ciy kontaan ñoom ñëpp ñu ngi préparé bës bi ñu war a daje arène national xam ne arène suñu arène la di si félicité Matar Ba taxawaay bi mu si am ba teg première pierre ba ba ñu def inigration bi si gërëm président de la nga xam ne si campagne électorale la waxoon dinaa tax arène nationale ku siy gërëm di ko sant kon nag foofu lañuy war a dem. dem nag bu uteeg dem yi ñaar fa dem dem yi dafa am lu ñuy wax benn feebar bu fi am muy mbas boo xam ne mbooloo rek lay bañ jegante lay bañ ñuy ñaan yàlla suñu borom mu sàmm ñu ba ku fa dugg bisimilahi rahmaan nga ñibbi alhamdulilah dara bañ la dal ci barke yonent bi ku fa bëgg indi feebar yi yàlla na la yàlla téye ba doo dem ñu koy ñaan waaye nag mesures yi mënta ñàkk jegante bi dañ koy daw foo nga takk max di raxasu d'ailleurs ñun amateurs yi am nañu ay test yoo xam ne moom lañuy xoolee tempérament bi bu soobee yàlla dañ ko jox promoteurs yi am nañ ko dañ ko jox promoteurs yi même bu dee bës boobu beneen bés bu munti doon amateur buy dugg promoteur bi mën na teste nga xam ne kuy dugg ci làmb rek dañ la mën a teste loolu dañ ci jox dinañ ko jox promoteurs yi lutte traditionnelle tamit ñoom Diène Diouf dinañ si jox ñoom tam promoteurs yi dinañ si jox tamit ministre des sports parce que moom mooy yilif ñëpp dinañ si jox sax CNG de lutte pour ku nekk rek xam ne loolu tey foo mun munti dem wala kuy dugg si arène bi war nañ la mën a teste pour nga balaa ngay dugg ñu xam ndax am nga tempérament wala déet léegi prési loolu am na solo defe naa appel bi am na solo wax ji am na solo kon samedi yàlla nañ ko fekkete tal ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa léegi nag su ma ñëwee ak yow ci làmb en général difficulté bi marsu daaw ba marsu ren donte feebar ba fi jaaroon li ci jot a am ci ay conférence de presse yu mbër yi bëgg a bëre ay waxante jóge ci ministère de la justice accusé nañ fi sax Gris Bordeaux nervi yooyu yëpp am na fi ci diggante bi yow ngay jiite amateur mbër yi nga yàgg leen uf ñu nekk sa njaboot yooyu wax noo ko dundee waaw wax yooyu wax nañ si parce que euh, ñi ko doon wax dañoo juum Gris Bordeaux duggul si loolu fekkewul fa loolu xamul loolu man mi dem naa si benn émission ba benn waay di wax dama ne ko fekkee li ngay wax da nga koy dëggal ñun dañ lay porte plainte mu daal di xam ne la mu ko wax lu wóor la dëggalu ko dama ne ko déglu audio bokk la def action kii image yi nga gis nii xam nga ne ñi mbër newu si benn mbër defu ko kon nag waloo taqal mbër yi loolu tamit boo ñu si gërëm ñëpp képp képp ku nekk si lam am nga taxawaay boo si taxaw pour weddi loolu kaw ministre de comme que moom recevoir na ñi nga xam ne nii tey ñoom la waxoon ne mbër yi ñoo loon dem ñoo loon def lii recevoir ne leen man doot doot dootuma si wax lu ma si wax rek waxoon naa ko waroon naa si wax mais comme que nag ndeyu mbilli ji toog nañu ak moom ñoo xam ni ñu waxante man loolu ma si wax. mais dinaa la ci laaj laaj leen rek parce que ci dañu liir démb ci ay propos mu mel ni mbër yi dañu sàkku ci moom gisante ak président de la république monsieur Macky Sall muy Gris Bordeaux kuréel bi mu jiitee loolu noo ko gisee. waaw loolu bu leen neexee dégg naa wax jooju loolu bu leen neexee mais li am solo mooy euh, Matar Ba yàgg na bëgg président recevoir njabootu làmp xëy na calendrier président mooy fees mais xam naa ne Matar Ba mu ngi si waxtaan pour président recevoir làmb kon nag ñun ñun suñu tutelle donc xam naa ne mu ngi si te incha allah dina ko def hmm. tey làmb ji ku ne gis na ni ah combat yi jax na fi mu nekk nii ndax la 4 avril ñu ngi koy waajal dimanche sëñ Modou ñaa day ñëw arène nationale journée yi mu mel ni fi mu nekk nii tamit xat na ren promoteur yi euh, saison bi ñu tëj ko wala ñu bañ koo tëj yow boo doon lancé appel tay ban nga ciy wut maanaam saison est-ce que est-ce que jar na tëj ren. tey saison bi mën nañ ne du tëj waruñu ko tëj sax parce que euh, période fu mu toll nii. combat yi bari na macha allah euh, am naa yaakaar ne mën nañ ko bañ a tëj pour combat yëpp sotti incha allah parce que parce que daaw la woon comme am na combat xam daaw la woon. tey CNG day recevoir ñi nga xam ne ñoo waroon tëgg daaw bu ñu paree mu jox ñeneen ñi dagg ñu bëri kon nag loolu ñoom ñu ngi si dañuy ñaan yàlla ñu gaawal ko rek gaaw pare licence yi gaaw pare lépp combat yi gaaw am waaw mbër yi mën a bëri incha allah. am na solo mbër yi mën a bëre euh, beneen cas bu ma lay laaj muy atu retraite mbër yi parce que 45 ans lañ ko fixé woon ñu gis ne ñu ngi dégg ay rumandaat naan léegi dañ ko nar a bàyyi ku nekk daal yaay xool bis boo demee ba mu mën a too bañ dégg sax ñu ñuy wax retouru baabooy ci làmb ji ba ñuy déclaré ne comme moom ak Gris Bordeaux am na ñu ko bëgg tudd nañ si sax turu Gaston Mbengue wala moo ko ama neex ba ama neex tey gis nañ ko ci sunu làmb mu ne baabooy su paree pare naa retour maanaam euh, ñu yokku euh, atu mbër yi. bàyyi ko noonu mu dem wala ñu yemale ko ci quarante cinq ans yi. man daal sama gis-gis du foofu xam naa ne quarante cinq ans tuuti na pour mbër mën a bàyyi bëri parce que ku gis bàll bi keroog mu muy daan bàyyi ma ñoon xam nga ne ba léegi mën na bëri boobu léegi nag xaw ma lu si nekk waaye quarante cinq ans doon naa wax ne tuuti na pour mbër di bàyyi làmb si quarante cinq ans dëgg yàlla. parce que da nga gis mbër boo xam day bàyyi làmb nga mel ni tey la gën a nekk xale waaw donc 45 ans dafa tuuti waaw loolu moom doon naa ko wax. Uh-huh. mais ñu bàyyi ko noonu bañ ko utal yemukaay wala ñu utal ko yemukaay bu la ci gënal donte dañuy yokk. yem loo gis am na retraite bu dëgg yàlla nag loo gis am na retraite xanaa na doo am yenn âge yi nekk si làmb di daw wala dem war nañ ko yokk rek xool 70 ans wala cinquante ans wala yooyu rek koo xam ne wala 60 koo xam war na dem nañ ba xool ne yaram bi nekkatu fi doole ji nekkatu fi. ñu arrêté combat bi loolu mooy yoon waaw mais aussi nit ki nag du dem ba yenn âge ne da ngay bëri rek jëmale suba loolu moom bu rek yàlla nit àdduna loo gis ñiy liggéey sax dañu am retraite retraite day am si société kon mbër mu nekk war nañ xool mu am mu war a retraité mu war a retraité même joueurs yi footballeurs yi dafa am agent bu ñu fa àggee dañuy bàyyi jubilé bàyyi loolu yëpp aussi war nañ ko xool war nañ xool âge bi daal waaw. lutte avec frappe yu mag am na ci le 4 avril bi. Eumeu Sène Lac de Guiers Modou Anta Diène Kairé loolu tamit defe naa ne luy neex amateuru làmb lay doon. loolu lañ ciy félicité Gaston Mbengue xam nga Gaston nag macha allah yàgg na si làmb euh, yàgg na bëggal amateur yi bëggal Sénégal kon nag tey bu indee combat bi combat bi combat bu am solo la indi combat la boo xam ne euh, combat de qualité la mbër yi macha allah mën nañ bëri te combat revanche la. ba pare mu am leneen lu si am mooy ki entraîné na woon Ama uh, Sène ba mu daan Lac de Mohamed Ali Ndiaye tey ma nga sa Lac de Guiers donc looluy bi. loolu sa xel teewu ah, ñoom professionnel lañu rek ñoom ku leen fay ku leen woo tamit ëllëg ñu ñu entraîné la mais nag loolu day yokk Ama Sène jom yokk Lac de jom. maanaam ki la ki la woon ba nga daan ma tey man noo ñëw si man kon man tey lesson bi damay ñëw man it pour daan la kee tamit xamal ko ne man yàgg naa bëri te xaw ma Mamadou Ali Ndiaye am naa xam-xam dinaa la daan sans Mamadou Ali Ndiaye donc muy combat bu neex mais mu jël komba bi dugal si ñaari xale yu mën bëri yoo xam dañoo tollu seen jamono ba pare am mbooloo combat yooyu sax dañ naa bu bële ëppalewu ko dara kon dañuy gën a félicité Gaston lu mu ñu indil lu mu indil pour bégal amateur yi parce que xam nga man xam nga tey làmb dafa am date ñu xamoon ay 4 premier 1 vingt cinq 25 cinq décembre. yooyu yëpp tey bu amulee Gaston indiwaat ko dañ ko siy félicité kontaan la mbégte la kon bés boobu dañ koy félicité ak combat gum mu si dugal muy ñaari xale yu mën bëri kii dëkk Sëmb Jun doomu baykat doomu mbër ki dëkk na Fall Thiès di champion waa Thiès bàyyil ko xel mënoon na ñëw nekk si écurie Ndakaaru yii mais def ko dafa gëm boppam toog Thiès kon nag kooku tey am na combat bu rëy Modou Anta euh, Diène Kaïré am na combat bu rëy xam naa ne daal combat la yoo xam ne ku si gën a respecté sa morom jox sa morom cër mun nga si am ndam lu rëy. ba tey date yu mag yi duma ci jóge yow parce que defe naa ne Siteu Papa Sow daaw lañ ko waroon bëree ko corona bi yàqu pa Abdou Fall jaar fa ñu gisaat Luc Nicolaï yëngalaat na fi mu nekk nii euh, Modou Lo ak euh, ka nga xam ne moom moo di Ama ñaari date yooyu tamit muy date yoo xam ne bokk na ci laal mba de xaar ba ci Siteu ba ci guy gi sax ak rëg-rëg waaw guy gi rëg-rëg euh, moom la ñuy xaar incha allah yaa ngi dégg combat yi nga fi tudd yëpp ay combat la yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu même la même Abdou Diouf 2 ak gi ak Abdou Diouf numéro 1 ak Girgi 2 combat bu neex la dat bu rëy la moom la combat yi combat yi kay macha allah macha allah macha allah nañu ñaan yàlla dafa la ñu cat ñu fekkee lépp te tal ko yàlla musañu si mbas mi jëlee fi lépp si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu mën a di seetaan suñu làmb yi di bëgg suñu làmb yi incha allah fii may waxee tamit muy Equivox dañoo seen biir label bu tudd Vox Arena ñoom ñoo tëgg Mama Lamine ak Garga numéro de tëgg Franc ak Tyson de ñooñ tamit defe naa yokk nañ làmb ñu ngi ñëw di yokk si ci làmb dara de waa Vox Arena. waaw Vox Arena dañ leen di gërëm parce que ku ñëw rek investir si làmb suñu mbokk nga suñu xarit ñun làmb rek lañ am ku ñuy bégal rawatina yow nga xam ne si làmb nga bokk ñëw di fi liggéey donc dañ leen di féliciter ñaanal rek site bi yàlla may ko jàmm. yokk ko comme combat itam ñu dugg tamit ñu bañ ko rëccu yàlla may leen si ndam may leen si promotion bu parce que làmb dafa am promotion promotion bi moo gën xaalis bi parce que yéen tey boo leen duggee si làmb di tëgg làmb promotion bi moo leen gënal xaalis bi parce que ñëpp dinañ leen xam fu fu site bi àggul woon dina fa àgg ndax làmb ji parce que làmb dafa bari communication làmb moo mën a jaay léegi nit làmb moo mën a feeñal boo gisee nit ñëpp di si xëccu ñenn yi ñëw bëgg a nekk ay président ak yooyu yëpp tur moo tax coow la moo tax kon nag <laughs> lu am coow euh, macha allah ku nekk nag may coow yàlla moo koy joxe donc moo tax tey yéen tey boo leen si duggee ah yàlla baax na yàlla si yàlla rafetal seen njort tey li ngeen ut ngeen am ko si si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi ba tey balaa ma jeex ak yow la dama lay laaj ci wàllum euh, MMA bi. gis nañ mbëri Sénégal léegi di ko pratiquer rëg-rëg def na ci ay sorti gagné Bombardier noonu Bombardier bër ki dem waroon nañ ci defaat beneen sorti samedi passé far yàlla indi ndog si yaramam ba mujj wu ko def mbër yooyu def euh, MMA bi ak MMA bi tey yow en tant que euh, sénégalais loo ko noo ko gisee président des amateurs. xam man MMA euh, du ko seetaan. lu tax. parce que dama ko bëggul man sport bi ma bëgg mooy bis am sama réew. li am sama réew kay laa war a seetaan mais réew jàmbur du ma seetaan seen sport. say doomu réew koy joŋante prise. buñ koy joxante man du ma ko seetaan keroog super jamono bi nga xam. waaw Malick Mbaye ba ca Italie. man nga sa Italie. moom ma mu ne ma président dama la bëgg a yónnee combat bi buy am ak yooyu man ne ko man du ko seetaan. Ah. waaw parce que du ma ko seetaan man du ma seetaan loolu. jamais. mais loo ci bañ loolu la ci neexul. parce que neexuma sport la boo xam ne dafa violent sport bu bon la donc sport yooyu man duma ko seetaan. Hmm. donte sénégalais yaa ngi ci. waaw même sénégalais bu ñu si nekk sax man duma ko seetaan. mais mbër ci nekk tey di ko pratiquer kon loo leen di wax. bon mbër yi li mu leen di wax ñoom ñoo xam ah, parce que jom dañuy dañuy liggéey bu leen neexee ñu dem ci si pratiquer terewu ma ko benn mbër mais nag man bokkuma si ñi nga xam ne nii dama koy seetaan. Hmm. kon daal yow tey bu ma la déggee boo sañoon tey sax mu génn Sénégal. waaw bu ma sañoon tey bu dëgg yàlla bu ma sañoon tey euh, du am Sénégal. Hmm. bu dëgg yàlla bu ma sañoon du am Sénégal parce que benn am na genre bari na lu si nekk daal lu si laxasu. yaa ngi ay ay ay bari na lu si laxasu yoo xam ne euh, ñi koy def et puis ñi koy sponsorisé fii ñun suñu am suñu sport national ñoom ñu jël suñu xaalis. ba ñu sponsorisé seen mbokk yu jóge France ñëw di ñu indi MMA sport bu bon bi ñu leen di sponsorisé loolu fu ñu ko teg te ñun ñoom du ñu sponsorisé ñun hmm. waaw. yow loolu noo ko tuddee. ah li ma ko tuddee mooy réew mi réew mi réew mi leen si bàyyi rek parce que du yoon ñu ñu am suñu sport kenn du ñu sponsorisé te ñoom ñu jël suñu xaalis di ubbi fi ay société di jël suñu alal di si am bénéfice ay milliards di ko sponsorisé seen mbokk bàyyi ñu ñun loolu fu ñu teg. da nga jàpp daal loolu euh, ak complexe la wala bañ sa réew la wala. bañ sa réew la kay moo tax nii moo tax man bu ma gisee ñu leen di jàppale et puis la ñoom am na ñoo xam ñu <coughs> ñëwoon nañ si man pour jox ma xaalis pour ma jàppale ma ne soxla ma seen xaalis hmm. li si am dafa bari Babacar. MMA li si am dafa bëri waaw ay transfert argent ngi si ah, lu nekk ngi si waaw lu nekk ngi si moo tax man man daal. làmb jii laa am moom laay seetaan. te yow daal làmb nga jàpp ne fu ne war nañ ko fa tas ci àddina. mais mooy yoon làmb ji lañu war a jàppale et ñoom tubaab yi nga xam ñu ngi fii yor seen i soci di lekk suñu alal mais dañu war a sponsoriser sponsoriser promoteur làmb ji gën a dox mais du question que ñoom dañuy jël seen xaalis bi seen mbokk bu ñëw fii même. Euh, meeting athlétisme yi muy am da ngay gis tubaab dañ leen sponsor ñun nag ñun ñu jël suñu alal di ko jox ñeneen pour nañ def ni Mali Mali gars yi dañ leen di sponsoriser par force wala nguur gi ne la ñu annuler contrat bi. waaw waaw dañ leen sponsoriser. mais loolu est-ce que du photo autorité yi tamit. autorité yi réew mi parce que boobu boobaa président sax soxla muy joxe budget sport boobaa sponsor yi ñooy sponsoriser sport bi yëpp waaw budget bi muy joxe sax du bareeti mais lii dafa ñaaw lii du yoon suñu réew waruñ ko nangu waaw. Euh, looy tàggatoo amateuru làmb yeeg téléspectateur u Equivox TV tey du jànjeeku président des amateurs. li may tàggatoo daal euh, mooy yàlla wàccee réew mi jàmm may ñu wér ak gudd fan sutura ñu xam ne Sénégal euh, réew jàmm la ñun ñëpp ñoo ko moom nañ ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéeyal réew mi bañ xuloo bañ a xeex xam nga dégg njiit. képp koo xam ne yàlla def na nga nekk ci benn association am fu njiit ànd leen ngeen liggéey bu njiit ji jeexalee mandat am bu la neexee nga nekk candidat boo ko gañee nga nekk ngeen ànd dem liggéey moo gën nekk fii kii naan damay former kuréel fii kii naan damay def lii amul benn sens fekkee ñun daal làmb lépp làmb moo jariñu làmb la ah gisoo sa njariñu bopp kon nañ ànd liggéey moo gën xëccoo fii wax fii démb suba caméraman woo la nga naan ko kaay kaay filme ma gannaaw suba nga naan kay interview nga diw lu tax woowoo ma yooyu amul sens interview yàlla gën ñëpp waaw kon nañ ànd bokk ndey bokk baay liggéeyal Sénégal ñaan nag président li mu bëgg pour jeunes yi liggéey na ko def si làmb bu ko defee làmb làmb dina dox parce que jeunes yaa ngi fi jeunes yaa ngi fi xale yaa ngi fi nekk si géej gi di entraîné demul tukkiwuñu dugguñu gaal dugg fenn dañoo bëgg dundal jàppale seeni waajur kon président na dugal loolu si làmb may gërëm mbër yëpp di gërëm ménager yi di gërëm président des écrits yi ak école de lutte yi di gërëm képp koo xam ne ni communicateur traditionnel nga ak képp ku nekk si site ak rajo tele foo munti nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm waa CNG de lutte di gërëm ñëpp arbitre yeeg képp ku nekk si làmb daal muy entreneur yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen gërëm di leen sant. jërëjëf président. merci kon xulle defe naa ne téléspectateurs yi yéen itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen du janjeekoo lan àndaloon tey li ko waral nag mooy rek làmb comme ni ngeen ko xamee te Equivox tamit làmb bëggu cee des ginnaaw loolu moo waral tey ñu dégg ko micro te defe naa itam valable na pour ñu dégg ko micro ndax li may wax rek xulle man du ma jeté kenn ay fleur waaye nag dinaa jéem di wax dëgg te yàlla tax ñu nekk naan ay xale di dund làmb yàgg koo xam ci làmb gis ko muy taxawu làmb ba tey jógewu ci saa yu xëyee mu ngi taxaw mondu làmb ku ci am problème mu taxaw la ci côté bu mu mënte nekk moo xam bànneex la wala naqar la kon defe naa ku mel noonu tamit bu nekkee ci réew tey bu ko Fallou Ndiaye dee delloo njukkal tombeek saison di door a ubbi day baax ñu dégg ko micro mu wax ak askan wi di ko jaajëfal di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam mais di ko ñaanal Sénégal yëpp li mu wax autorité autorité yi tamit am na solo defe naa ne tamit sponsorisé sunu sport nationale yii moo xam sunu championnat yi la ak sunu lii defe naa ne loolu état war na ci bàyyi xel te loolu kenn du leen ko defal nag lu dul ñoom ndax nag it nag olof ne na bukki bu yabee waxambaane ca doxin wala di ñaan jàmm Sénégal di ñaan àddina bi yàlla na fi yàlla def ja xule di la remercier yow mi nekkoon si film bi ak ñi nekk si montage bi yëpp ñoom yàgg maar ak hélas di ñaan jàmm bu baax a baax